أسير ما لباره نسير وأن الهدام هناك أسير bu ñu gën a xam sëriñ bi rek nañ ko dund rek yoon wi gën di jëm kaw te bu ñu ko toppee day mujj yoon wi tiim lépp noonu <laughs> rek laa ko gisee jaar jaari sëriñ Touba tukki bi mu demoon ci géej gi lu ci ràññeeku la bari lu ci aju lu ñépp waxtaane lu gëstukat yi di leeral saa sune boroom xam-xam yi di ko leeral ñoom itam loolu li ko waral jële gi tubaab bi jële sëriñ Touba solul ko njabootam soril ko ay taalibeem akub dëkkam ngir sànki ko ca Gabon yooye jamono Gabon naqari naa dem lool mu di ab àll bu lëndëm këriis tar lool bërim ndox ci jëmm joo xam ne diggante kajoor ak bawol nga fekk baax li ci tubaab yi jublu ba tey gëstukat yi ñu ci mel ni Cheikh Anta Baabu ca daara ja ca Pennsylvanie ca réewum Amérique duñu deñ senn saa di samp ay laaj bi mu demee Gabon ngir gëstu ko jëlee koo xam ni kii mi ngi yaroo diggante bawal ak kajoor saalum ak nga xam ni ku ne xam na barab yi ni mu mel ak tàkk la wala mu nekk ndànd foy-foy euh, bari wutub taw euh, bari na jant aku tàngoor nga xam ni jant aku tàngoor kenn ku ne xam na ni euh, day rey doomi jàngoro yeeg deme noonu léegi nga jël ku juddoo foofu yaroo foofu màggee fa defee fa lépp ndax sañ Tuubaa mësta génn barab bii lu dul booba nga yóbbu ko ci barab boo xam ni daanaka day taw bis bu set nga xam ni àll la boo xam ni fu sa bët yem ay garab la nga xam ni yoo yaag mutt mutt yaag ak xeeti insectes ya du jeex tawat ya fa am sax ak sunu xeeti tawat bokkul ndax xam nga barab bu nekk ak tawatam fu barim ndox ak i tawatam fu néewum ndox ak i tawatam fu sedd ak i tawatam fu tàng ak tawatam kon mën nañoo jàpp ne li tax ñu yóbbu fa Serigne Touba de xëj na ñoom dañoo yaakaaroon ni ah, bu demee Gabon yàlla mën naa dogal mu faatu fa bu ko defee noonu raxas sunuy loxo ne ñun ko defuñu dara moom moom faatu na. baatu Gabon umpoon na Serigne ko tubaab bi yóbbu ngir li ñu jàpp ñoom tubaab yi ne barabub sànkukaay la boo xam ne ku ñu fa mës yóbbu dellu si ci say bokk dina la tëj tëj. waxuma laak di ko nettali waaye sëriñ Touba moom càppaa coli la ci ngir fa ay pexe yem fa la tubaab bi yem te aw xat damul te ba fi mu toll nii gëstukat yi saa su ne ñuy fësal ak di samp ay laaj ci nan la sëriñ Touba mënoon dunde ngir ay tartar nekkoon na benn barab boo xam ni kaa militaire la woon loolu yenu na maanaa ndax sëñ bi daanaka fu ñu ko mës a yóbbu ci camp militaire lañ koy teg camp militaire boo xam ne ma nga nekkoon euh, ci barab ba nga xam ne tey jii boo demee tey fa nga xam ni euh, fala barabu Léomba ne wax nañ ni camp bi foofu la nekkoon wala jige woon ak foofu Léomba mooy président bu nga xam ne moo ndik jëkk nekk président wu Gabon nekkoon na barab boo xam ne nekk nekk boo fa nit mën a nekk nekkeen wu tar lay doon taw ba du du taxaw ab àll la boo xam ne rab yi àll ya du jeex waaye euh, fel yaag mutt mutt yaag moom daal loo xalaat rek ci doomu jàngoro euh, mën na fa dal nit rawatina nag koo xam ne saw yaram miinu ko rawatina koo xam ne yaa nga jóge ci sayal nga xam ne xeetu jàngoro yi ñu xam fii bokkut xeetu jàngoro ji kon bu leen nit ñi ne xëj na tubaab yi dañoo bëggoon a euh, yóbbu sëñ Tuubaa euh, yaakaar ni xëj na buñ ko yóbbee foofee dina fa des Ah, ñoo raxas ci seeni loxo xëj na loolu kon maris na koo gëm ndax barab boobu moom doy na kéemaan doy kéemaan goo xam ne ku fa yóbbu nit yéene ko jàmm wax nañ ni montagne sainte googeet fa la ko tubaab yi bëggoon a fitale wax naa la ni Mayumba moom sori na lool lool ay téeméeri téeméeri téeméeri kilomètre la xëj na sax junni te itam ma nga nekk ci euh, bëj saalumu Gabon ak bëj saalumu Libreville te moom ci digg forêt ba nag la ne moom digg forêt ba bu bu tëx ba moom fa la ne waaw kon man na jàpp naa ne yóbbu gën fa yóbbu sëñ Touba moom dara tax. juróom-ñaari at yu teg ay weer sëriñ Touba nekk ko ci loxoy tubaab bi bu tayee ñu yóbbu ko fii bu ëllëgee ñu toxal ko feneen te lépp tegu ci kaw yi tuuma. li tax ñu jële ko Lambaréné gi nga xam ni moo gënoon a euh, moo nekkoon barab bu gën ci moom. ndax moo gën a jege libreville te itam moo gën a sori forêt boobu mag bi lu tax ñu jëlee ko foofee yóbbu ko fa gën a doy waar nag loola am na lu tax am na ñu wax ni sëñ bi am na benn jamono euh, xaalis boobu nga xam ne tubaab yi daan nañ ko jox weer wu dee muy pension bi nga xam ne def bindaloon nañ ko di ko ko jox weer wu dee te muy loo xam ni tribunal ba nga xam ne moo ko yóbbu gabon moo waxoon ni nañ ko fi yóbbu fukki at weer wu dee nañ ko jox nangam wax nañ ni buñ ko mësaan a jox sëñ bi moom da ko daan suul wala mu sànni ko wala mu am na mu ko def wax nañ ne am na bis benn commande benn ci administration coloniale yi administrateur coloniale yi benn waay bu ñëw nag bu saay saay rek bëgg rek mu mu jël xaalis bi ci loxoom forcé ko daal ni ko ni ko danga ko jël di nga ko téye wax nañ ni sëñ bi xëpp na ko xaalis bi wala sànni na ko ko nee nañ ba mu ko defee nag tubaab yi nee nañ loolu garaaw garaaw lu garaaw a garaaw la kii nag li mu def garaaw na lool ndax lu toll ni administration coloniale wala lu toll ni ku bokk ci colonialisme rek te nit ku weex nga def ko noona toroxal ko noona wala nga gaañ ko wala nga néewal ko euh, solo noonu loolu war na ko faj wax nañ ni booba lañ fa jële sëñ Touba yóbbu ko njole njole mooy fa nga xam ni tribunal ba ñu àttee woon Samori Touré xam nga ni Samori ak sëñ Touba daje nañ foofa léegi wax nañ ne fa lañ ko yóbboo tribunal àtte ko fa ñii nee nañ dañ koo mbaa yàlla ñii dañ ko condamné waaye man boobu moment rek laa gis de ci li ma gisagul ci taarix muy moment boo xam ni digganteeg sëñ Touba ak tubaab bi ah, xajam na fa xajam goo xam ni tax na xëy nañu ñu mere ko ba dañ ko yóbbu maa yóbbu. bu ñu ko jàngatee yoonu Gabon mënees na ci andi ñetti tolluwaay di ay meññeef yu wér cëng yu Cheikh Ahmadou Bamba jëlee ci liggéey bu mag boobule benn di digganteem ak suñu boroom ñaareel bi. di digganteem ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñetteel bi di digganteem ak mbooleem ñi aju ci moom yaakaar ko may yi mu ci jële ak meññet mi mu ci góobe du yaatu la mënees na ko séddale nag ñetti xaaj bi muy tukki dafa wax ne bokk na ci li taxoon muy tukki mooy am daraja ju kawe fa borom tabaraka wa kon benn xaaj bi mooy bu dox digganteem ak boroomam ñaareel ba mu ne da bëgg naa yit doon liggéeykatu yonent bi sallallahu alayhi bi nga xam ne mooy bi gën a kawe ñetteel ba it mooy li mu waxit ne bi may dem ci tukki bi booba euh, am na fu ma bëggoon a àgg foo xam ne su ma fa àggut li ma yéene ci njaboot gi te mooy aw nitam ñun ñii ko yaakaar àddina ak alaaxira ak jullit ñi nga xam ne ni ko yàlla def neex na leen li ma yéene ci ñoom duma ko mën a am te mooy xet na leen fii ci àddina xeetale leen fële ci àllaaxira ana lan la ñu mën a jàpp ci digganteem ak boroomam te lépp bawoo ci tukkib gabon bile. Euh, bépp wàccuwaay ak bépp daraja ak bépp maqaama boo xam ne bëggoon na ko ci diggam ak yàlla yàlla defal na ko ko bi tukki bi jeexee ndax tukki bi bu ñu fàtte ne tudd yàllaa ko taxoon a jóg ak sant yàlla ak xidma ak jihaad yooyu la wax ne liggéey bi mu liggéey ci biir tukki bi ci fànn yooyu la jëm. kon wàccuwaay bi nga xam ne wala daraja yi nga xam ne moom la bëggoon a am te ba ca gën a kawe gën caa màgg doon jaamu bi yàlla bopp yàlla da koy gërëm nangul ko jariñ ko muy jariñe ba noppi itam euh, euh, jox ko barke muy ñeenti yëf yoo xam ne ci ci doon gi mu doon jaamu bi yàlla bu mu gërëm ci la ko amee nekk jëwriñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di xaadimu rasul ci tukkib Gabon bile la ko Serigne Touba làqe nekk di xadimu rasulillahi ndax loolu da koo bëggoon te mënu ko woon a amee ci biiru njabootam mënu ko woon a amee ci biiru réewam mu ñaan yàlla dem liggéeyal yonent bi ci géej gi wax naa la sànq ne la xidma dafa bokk ci sabab yi taxoon mu sóobu ci géej gi xidma moo tax mu nekk ca loola at mi juróom-ñaari at yi mu def ci géej gi ak ay weer at mu ci nekk da ko séddale ñaari xaaj juróom benn weer yi tagg rasulullahi ci biir xidma boobu juróom-benn weer yi julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci biir xidma boobu salaatu sitta bi madaxe sitta te atihi ba tamaati saay bi mu demee ba liggéey booba àgg suñ borom xamal ko ne ko kat def naa la nome naa la tey képp ku mas a liggéeyal Moustapha moo xam Kaab moo xam Xassaan moo xam Busayri moo xam ku mën a doon tey maanaam romb nga ko weesu nga ko te yooyu yëpp na ko wax ko waaye nag la ma cay tudd nag mooy la mu wax ne yàlla nome na ma tey ci te jaar ko ci nguuram gi nga xam ne du jeex mukk amul fu mu yem name na ma tay ma nek asna khadim moy ki gëna kawe ci ñi liggéeyal mustafa sallallahu alayhi wasallam te loolu mi moko défé ci bir géej gi la ma ko defee. bokk na ci itam ca gabo fa la ko suñu borom wane ahlu badra ndax bo fekk na ñi nga xamné ñoy ñooy soldaar sonal nañ seen doon te suñu borom rek amna fo foo bu fekke mi ngi liggéeyaloo liggéeyaloo ab jamm bu fa àggee rek faaw mu wane xar بنيوم جاجو خم فين واري يوم فم مرة سرين تبا دي وحنا يسر للمنى لدى ليبر ولي من قاد لي ما غاب عن كل ولي لي قاد أهل بدر الأسودة من صحصى الواشي والحسودة فوالوكو سن بروم دفلتي بير قبو كون قبو مدستاني bu fekkoon tane liggéeyu sëriñ tubaab bi dañuy wax ne li ñuy wax jawfal fara kon mooy gabo jawfal fara liikun bi kun sarambat na jawfal fara lil wara misal maharimi yoonu gabon yi mooy loolu ci tukki Sëriñ Tuubaa bi demub Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ci gabon mooy findeel cër bi ñëpp bëggoon te mu jafe lool te yonent bi sallallahu alayhi wa rafaatale ko ko muy ràmm aw xeetam te loolu mu ngi ci loxoy Xaadimu Rasul responsabilité chafaa maanaam xettali nit xettali mbooloo xettali ñi la yaakaar ngir yàlla loolu dafa nekk responsabilité bu diis boo xam ne di wala fi naan nangam la muy jar lëf nangam lay jar ca ca ca ca mbaaw am na loo xam ne ku ko bëgg ko ne faaw nga am loo def loolu bokk na ci li tax sëñ bi jaayante woon yoonu géej gi te mooy dem ba mën a xettali aw xeetam moo tax gis ngeen sax ba muy jeexal tukki ba dafa ñaan yàlla ne ko maa ngi dellu de yaa ngi may delloo gi naa bi liggéey bi matee waaye sama dellu gii na nekk texeeg sama xeet te su ولكن يوم جمع الخلق نيرانا كون داي ملني سعاده ادينا قومي مانام تخيك ادينا غوغو اك موتوك ساوار الهك دي بوك نا سي ليغا خامني داكو جيلي سي توكي بي تي لولو نين ني لا غنا سوخال نين نيكو ياكار موتاخ بي مو نيبيسيم واخني يونتبي صلى الله عليه وسلم ماينما الهك رام غوغي كو يالا جاغليل سي بير يونتي ييب جوخنا مكو سو وهب لي خير الورى الشفاعة في من أحبهم وهم جماعة ويا رمو جنك دخار بقول لك مكيرف في لغة تامولي بدي أنك أمنتي جامو يالي كويا كار غوري ني توفيق كويا تو ني لب تجج سي لغو لولا نيت كو نيول ديكو ساغو تي أمت رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نصران بي ويرنا أي نغانايام بامو تلي تي أي بحيم شيخ أحمد بامبا خادم رسول دونغ moo sañu yëkkati ay loxoom ngir matale sart yooyu le nguuru ceddo yi jafe-jafe yi askan wi jànkoonteel indiwu ci tontu la gën nguuru tubaab bi moo yées encore indiwu ci tontu la gën ci liy soxla si askan wi ñi nga xam ne ñi ñooy wuyoo diine it taal jiyaar mu doon fitna bu rëy te wul tontu li gën ci li nga xamni li moy li askan wi jankonté muy ñetti tontu yo nga xam amul ben bu ci indi li nga xamni li moy li gën euh, Cheikh Ahmadou Bamba indi nak tontu bo nga xamni bi dafa depo ak jamono jooju muy leeral bo nga bi ci walu intellectuel ci walu gestu ak jang ak xeltu lu am solo la te duñ ci tek baram ci li ëpp dañu insister ci euh, tubaab bi lim ko yóbbu loolu lu am solo la gaa waaye gis ni mu comprendre situation bu ba indi nag tontu loo xam dafa saxal créé kurel gu bes euh, daara ju bes façon jangalin gu bes muy tarbiya du rek dem daara jang alxuraan man ay ay ay ay ay ay ay hadith du won loolu rek mokal alxuraan xeyna amna am na lu am solo la mais dafa am leneen lo xam dañ ko ci dugalaale manam defar nit ku bes ku ñuy wax aspirant muy murit jublu beneen jubluwaay bu bees yaakaar naa loolu lu am solo la ñun nag war nañ natt bu baax a baax loolu ndax jamono ji ñu nekk nii dafa dëpp dafa xellami ko ak jamono ji nga xam ne ji moom la ci Amadou Bamba dundoo mooy ni nguur yi nga xam ni ñoo jublu ŋànk àddina léeg-léeg dinañ lottu ci indi saafara ci tawati doomu aadama yi euh, nguur yi nga xam ni ñoo nekk bitim réew lottu nañ ci indi tontu ci li nga xam ne lii mooy soxlas waa réew mi ci wàllu culture ci wàllu diine ak ci wàllu koom-koom ak ci wàllu politique ak wàllu social te tontu li nga xam ne lii moom lañuy gis léegi mu gën a siiw ci euh, xibaar yi mooy ni islaam ni ko dëppale ci jihaad muy jihaadu ngànnaay gis nañ ni ci jamonoy Cheikh Amadou Bamba gisoon nañ ay ay ay ay ay ay jeexitalam man la mën a indi comme limite ci jamono jooju tontu li nga xam ne lii moom la Cheikh Amadou Bamba tontu woon ci jamono dafa nekk tontu loo xam ne ba léegi dafa nekk actualité ci jamono ji ndax li ñuy dund tey ci jamono jii dafa xellami lool ak jamono yooyu yàlla def na ma dem Libreville ci Gabon ñuy visiter place yi nga xam ni fa la sëriñ bi demoon dafa am lu ñu fa xaw a yéem daal mooy waax bi mu wàccoon dafa dend ak président de la république gu Gabon. ñu dem ci mu dend ak dëkk bi nga xam ni bii fa la doon defee ay euh, santaane yàlla ci dëkk dëkk boobu mu doon ab dëkk bu ndaw ci jamono yooyu tey jii boo fa demee di fa fekk ñu teg fa xabru ki nga xam ne mooy premier président Gabon dëkk boobu mu wàccoon fa mu fa njëkk wàcc fa la fa foofu la nekkoon fa la fa la xëbru président premier président Gabon muy Léon Mba foofu la nekk man ba mu fa demee dama xool ñu bind ci xabru ba ni Léon Mba 1902 la judd 1902 mooy at mi fa sëriñ bi jóge donc ay waa waajuram xëy na nekkandoon nañ ak sëriñ bi ci biir dëkk boobee te boo seetoo boo jubloo penku ci xabru ba ci sa wàllu ndijoor jumaa ji gën a mag ci Libreville fa la nekk taqaloog moom daanaka à peu ay 5 moo dox seen diggante juróomi mètre moo dox seen diggante boo xoolee ca wàllu càmmoñ wa beneen jàkkaa nga fa nekk beneen jumaa nga fa nekk muy jumaa yi Assane ñu séq ñoom ñaar xabru bi quartier boobu amul benn ambassade bu fa nekk ambassade yi ci yeneen quartier lañ nekk ci Libreville ba mu des nag ñaar ñaar ñooñu muy ambassade du France ak ambassade du Sénégal taqaloo ak xabru bi daanaka ki leen fa ñetteel mooy président de la république du Gabon ak ñaari jumaa yi man ma ni ah ku am seetlu de man ngaa yéemu ci ni ñëpp ñi nga xam ne ñoo séqoon exilu Cheikh Amadou Bamba daje nañ tey ci benn quartier bi muy Sénégal France Gabon ak premier président Gabon Léon Mba nga xam ne mu ngi judd at mi nga xam ni fa la sëriñ bi jógee Gabon la judd tey xabroom ñaari jàkk ñaari jumaa wóor ko dàmbe ko nii te bi fa sëriñ bii dem defe naa ay jullit waruñu fa woon a bari maanaam loolu daal seetlu naa ko man bi ma fa demee seetlu naa ko ci libre Libreville ma yaakaar ni xëy na lu am solo la loo nga xam ne war nañ cee mën a xalaat lu am solo ku nekk nag yaa xam noo koy jàngate bu dee yoonu géej gi moo doonoon jeexal ba faw mbirum Serigne Touba loolu de la mu jur mooy jant bu leer nañ bu tiim ñépp bu suñu borom yëkkati rasulullahi sallallahu alayhi di ko ndamoo waaye nit ñi rawatina ay taalibeem di ci sant ngir ab contrat bu doxoon digganteem ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi bu suñu borom teg ab signature te Cheikh Ahmadou Bamba khalim rasoul matalal nako seuk